mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di uh, ziar ñëpp mbooleem ñu ñuy seetaan uh, ci Sénégal fii ci réew mi ak bitim réew jaspora bi surtout ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen ziar di ziar tam képp ko xam yaa ngi ñuy seetaan fële ca dëkk bu tedd ga di Touba ñu ngeek ak uh, maam Thierno Mbacke bu sëriñ fàllu Asta Dieye moom tey moo ñu dalal ci biir këram ñu war a waxtaanee lu bëri ci Touba ak yeneen ak yeneen sur le plan économique développement. politique situation réew mi la ñu war a waxtaanee incha allah mu am ay kàddu yoo xamante ni war na ko ci euh, rotal ba ñëpp yëg ko euh, sëñ bi Mbacke maa ngi lay ziar bu wér te euh, di la ñaanal gudd fan ak wér ak jàmm ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñu seetaan ci Sénégal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem jullit yëpp di ziar yi ñëpp surtout diaspora bi ñu leen nuyu di leen ñëpp sama mm-hmm. ñu ngi leen dal bu baax. Mm-hmm. di leen mm-hmm. wa rahmatullah waaleykum salaam wa sëñ bi li ñuy njëkk a waxtaanee euh, ñeel na euh, dëkk bu tedd gi di Touba. sëriñ taxa xalif bi sëriñ Touba moom yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér mm-hmm. lépp lu mu nal ci dëkk bu tedd goo ak ci biir réew mi yëpp. ak ci umma islamique yëpp yàlla na ko suñu boroom mottali kooku moom maa ko bëggal sama bopp man kooku moom sama sëriñ la man mm. du sa sëriñ yow sama sëriñ la man <laughs> moom sëñ Muntaxa mm. di nga ziyaar bu baax li ñuy njëkk a waxtaane mooy ci ci dëkk ba mm-hmm. Touba mm-hmm. boo xoolee Touba mu nekk dëkk goo xamante ni dafa am euh, lu spécial loo xamante ni mm-hmm. moom la moome waaye tamit mu nekk dëkk boo xam ne war na gën a naat war na gën a weesu fii ak la fa nekk yëpp lan mooy problème mu Touba sur le plan de développement. waaw Pape Maguette loolu li ma la ci tontu mooy Touba. Hmm. dëkk la boo xam comme ni nga ko waxee rek. Hmm. lépp am na fa. Hmm. léegi lan moo tax nag Touba defalibut moom loolu moom question la boo xam ne moom. kenn kenn kenn dontoogu ci ba tey. Touba lépp am na fa lépp. lépp am na fa lépp lépp loo xam ne loo yaakaar ne war naa mën defale fa am réew rek am na Touba. léegi lan moo tax defalibut nag loolu moom. question la. Mhm. question bi nag li la ci tontu ma li ma xalaat mooy Touba. dafa amul ay liggéeykat. Mhm. bu amul ay liggéeykat wala ñu xarañ ñoo xam ne war war nañoo mën a liggéey ci dëkk bi wala jàgg nañu jàgg nañu ci administration. Mhm. jàpp naa ne Touba war naa mën a weesu fii. parce que Touba mooy deuxième capitale di di di di Sénégal. la fa am boo génnee Dakar la fa dafa yeewoo ci nit. Touba dong la yeewoo ci Sénégal. amul dara. maanaam ay sareet dafa am. ak gone yi yor ko mm-hmm. ak oto yoo xam daanaka amuti kayit te loolu lépp lu ñu war a jugal la te loolu du ma ci génne rek maire bi maire Touba mm-hmm. parce que lu métti métti rek war nañoo def ay jéego yoo xam ne danañ def ay jéego nit ñi xam ne ñoom ñoo ngi góorgóorlu mm-hmm. nit ñi deen jàppale mais yenn jéego yoo xam ne maa ngi ko gis maire bi da ko def ah man ne am na man du ma du ma ne am na du ma ne amut bokk waaye am na lu ci am mais des na moo tax Touba fu lu ñu war a xolaat te tegaat ko ci ay loxo yoo xam ne war nañu ko mën a liggéeyaat ba mu gën a wees ba mu ba mu weesu fii mu nekk. Mhm. Euh, tegaat loxo euh, ci ñeneen ak itamit euh, yaa ngi wax ci wàllu administration maanaam ñi nga xam ñoom ñoo jiite ci maire gi. Mhm. loolu dinaa fa ñëw tuuti am luñ ci war a yaatal. Mhm. mais ci wàllu développement boobu noonu jeunesse bi mi ngi fa comme ni nga ko waxee. ñëpp a ngi fa jeunesse baa ngi fa booy xool sax. Euh, ci ci ci njabootu sëriñ bi booy xool bëri na ay ndaw yoo xam ne am nañ xam-xam jàng nañ xam nañ àdduna boo xoolee fi jamono tollu tey lu nouvelle technologie ak ci wàllum nasaraan ak anglais lépp ay ndaw ñu mel ni yow ñeneen ak ñeneen. am nañ xam-xam boobu léegi nag lan moo war a mbir mi ba ñu mën a développé dëkk bi comme ni nga ko waxee sareet rek fa am ak ay oto yoo xam ne amul kayit taw Touba war na mën a weesu foofu. ba Pape loolu yow xam nga tuubaa ni muy ni muy doxee. ndax mm-hmm. ñëw nga fa du benn du ñaar. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga ne amul dara. du usine bu ñu liggéey. du dara benn usine laa fa xam man ca nekkul biir Touba. muy Touba Bogo. te est ce que ndox fa ñuy fa ñuy defaree ndox mi est ce que. am na yenn maanaam li ma bëgg a wax mooy est que am na yenn kii yu fay yu fay liggéeyee maanaam yenn service yu xaw a bari yu fa mën a liggéey. xam daanaka amut ndax Touba Touba Bogo nekkul ci biir Touba. waaw Touba Bogo nga fi génn nga fa mën a génn ci benn usine bu fa bu fa nekk bu defar ndox amul feneen mm-hmm. léegi Touba bu fekkee ne loolu moo fa am ay saret doo nga am na fa mm-hmm. gone yi ci saret la ñuy dugg waaw ci lañ jëmale seen seen i jëf ndax nga gis saret xale boo xam ne fukki at ak ñaar la am wala fukki at ak juróom gën ngaa bari da yor ab saret loolu fu mu teggee sëñ bi ca war a dem jàngi wallaay fa nekk nii am xam-xam war a liggéey a liggéey amuñu luñ liggéey mm-hmm. parce que man xam naa fa samay morom yoo xam ne ñii jàngoo jàng ba weesu baggu arab ñii jàng ba weesu liggéey loolu moom doo xam doo xam ci côté état bi doo xam ci côté Serigne si la. loolu moom dafa fi xaw a neutre moom. ak Touba nu mu yaatoo suuf si nangu mbay mi macha allah ak yeneen ak yeneen yoo fa am yëpp sur le plan côté tourisme. parce que mm-hmm. bëri na ay nasaan yu fa ñëw di découvrir Touba. Mm-hmm. Euh, tey jii nii euh, foofu ban ban système la ñu mën a def pour mën ko développer côté tourisme ak li nga xam mooy ci wàllu mbay mi ndaxte am na loo xam ni xew na fa ci baykat yoo xamante ni pour ñu gis ay ndimbal sax dana jafe. waaw Paa mag loolu moom dama koy tàmbalee ci man mii nga xam ne baykat la mhm. man doo baykat laa sama baay baykat la sama lépp ay baykat la. Mhm. Touba da ngay am ay tool nawet bi ñëw doo am aw jiwu. Mhm. di sëriñ boo xam ne wa ngaa war a bay ay ay ay ay ay ay ay nangam jiw woo xam ne yow ñañ koy jox moom xamuñu dara ciy tool ah, ña nekk Ndakaar yu taxawaa lañ ko jox. loolu maa jàpp ne moom moo mën a ñàkk moo tax sëriñ si dañoo sonn. jiw boobu mooy mooy ban mu jiw bu ñu war a jox baykat yi. jox baykat yi. parce que ñun ay baykat la. Mm-hmm. man mii damay jënd jiw mm-hmm. chaque année lu mu gàtt gàtt dinaa jënd lu mat 500000 wala dinaa dinaa jënd ay jiwu. Mm-hmm. ndax man bu tool tool yu bari laa yor. dinaa jël lu mat 500000 yoo xam ne dama ko jël jënd ko aw jiw. te jiw yi dañ koy jox ñoo xam ne béyuñu xamuñu ëllëg fu mu nekk Dakar la ñuy nekk di taxawal wala feneen ak feneen. ñu leen jox ay nangami yoo xam ne xamu dañ koy jaaree donc. ñooñu ñan la ñu ñu ñu jox pour ñu dem jox ko baykat yi wala boog ñi nga xamante ni ñi ñu ko séddale da nga bind rek dama seen ñu séddale waaw noonu la ko état xam ne na laa jàllale rek waaw yii moom dañ ko politiquer hmm. dañ hmm. yi duñ gis jiw dara duñ ko gis muy ma fa ma dëkk man duñ gis dara hmm. parce que man koy jënd te ah. loolu mën naa ñàkk jiw yu askan wi dañ koy delloo ñu bàyyi ko joxaar ko ci askan wi loolu moo yoon. Mhm. alors ci wàllub euh, wax nga ko sànq euh, administration mairie bi ni koy diriger parce que foofu tamit comme ni ma la ko waxee ah. statut mhm. spécial la am ñi nga xam ñoom ñooy diriger day bàyyeekoo ci kilifa gi ñoom ñooy diriger mairie bi ñoom la ñuy xool ñan la ñuy samp ci élection yi mais tey ñi ñi ñuy samp noonu noonu te kilifa gi teg leen fa tey lu tax ñoom amuñu capacité wala boog amuñu euh, bëgg-bëgg. pour defar réew mi parce que bu ñu amee bëgg-bëgg dinañ ko defar lan moo indi blocage bi. waaw man de Pape Maguette maire Touba man li ma ci wax mooy ni muy doxee nii man bu fekkee ne moom dëgg la la ñuy wax. Mm. man noonu ànduma ci. Mm. ànduma ci parce que Touba donte spécial la statut spécial la. tamit mm. kuñ ko jox jox la responsabilité bu rëy. même bu fekkee amul ay wat yow nga caa mën a liggéey lu wér-wér. Mm-hmm, mm-hmm. waaye nag Touba ni mu toll ci réew mi ba pare kaddu jox kàddu moo la ko jox. bu ko loo xam ne kàddoo la ko jox moom moom nga war a gën a liggéey sax ci loo xam ne warta la ko jox parce que yow lañ dañ daa wóolu Touba ni mu toll ñu wóolu dafa ne yow mii lañ jox maire bi lu metti metti metti war ngaa mën a góorgóorlu defar maire defar biir Touba wala nga wut ay ay ay ay ñi di ci liggéey waaye Touba amul dara maire bi ah donte am na yu muy def mais man damaa jàpp ne lu mu def rek benn war naa mën a def fukkam wala ñaar fukkam mais comme ni nga waxee noonu kàddu moo la fa teg kilifa gi moo la fa teg te ñi la fa teg am nañu Euh, pas-pas boo xam mën nañ génne ay milliards di la jàppale boo amee ay projet pour liggéey réew mi. Mhm. mais la kooku noonu tey est-ce que loolu dina ko bàyyi xel. ak itam lan moo koy bloqué pour mu mën a liggéey parce que ñi am alal biir Touba war a mën a defar ci biir réew mi yomb na bu maire taxawee ne on des projets yoo xamante ni projet yu yu yu leer nañ la war nañ cee mën a taxaw nag. mais est man que man man Pape Maguette mosuma gis Touba maire yi ne am naa ay projet nangam nangam loolu mosuma gis. mosu am franchement ah. dëgg rek laay wax waaye mosuma ko gis moom ñu ne maire bi dem na yuuti projet nañ ko financé lii la hmm. vraiment mosuma ko gis moom waaw loolu moom mosuma ko gis dëgg rek laay wax hmm. waaw hmm. fa dëkk yoo xam ne tey ji ci fëggoon ne ko projet nanga am na mën na ko financé parce li ma la xam lu ma xam la loolu moom xam naa ko wér-wér ñoo xam ne moom wér na ma ne yor nañu ay milliards xam ne mhm. projet bu wóor bu ñëwoon tey jii mën nañu ko financer projet ndox sax mën nañ ko financer mën nañu ko financer projet boo mhm. moo tax ma ne la Touba moom maire bi Abdoulaye noonu tamit liggéey mais war naa mën a gën a góorgóorlu ci liggéey bi mhm. war naa mën a gën a góorgóorluwaat ndax dañ koo sas sas mooy loo xam ne yow dañ ko jox bàyyi nañ fi ñëpp bàyyi nañ fi ñi nga xam ne seen maam moom dëkk bi jox la ko kon lu metti metti de war ngaa mën a góorgóorlu ngir liggéey dëkk bi mm-hmm. wutal xale yi ay liggéey mm-hmm. parce que souvent xale yi dañuy xëy di taxawal rek mm-hmm. jàngiwuñu dañuy xëy di taxawal rek taxawal dong dong dong dong la ñuy def defuñu leneen ba ba ci côté boobu nag euh, si si waawlu politique bi la ñuy desee ba tey parce que am na fa ay politiciens yoo xam ne ñu ngi fa ñi ñu ngi bootu ci nguur ñi ñu ngi nekk ci opposition bi ñu ci bëri sax ci opposition lañ nekk parce que bëri nañ fa tey bu élection jotee ñoom ñëpp ñu génn ba ci élection yi nga xamante ni ci la jëm muy euh, élection député yi ban jàngat nga am ci loolu am na coow sax boo xam ni am na ci tamit. gisoo Ba Maguette li ma lay wax rek. Mhm. Macky Sall ñu kenn baaxul kenn. déet waay. waaw ah, war na benn wala ñaar ñu ci baax sax. wala day dem xam nga mbooloo moo gisee am xam ne gisatuñu lu baax li waaw. xam nga am na ñu tane. Mhm. waaye lu baax li moo jafee gis. lu baax li moo jafee gis. waaw parce que man a personne. man mhm. du ma Macky Sall. du ma ab Sonko du ma kenn. mais dëgg laay wax rek. xalaat naa ne ci réew mi laa bokk. xalaat naa ne war wax sama sama xalaat ci réew mi. moo tax ma wax sama xalaat ci réew mi nii. mais Macky jàmbale bu bënut. man dëgg rek laay wax Macky Sall du nit ko mën. mais ki ñi ma àndal ñëpp quatre vingt dix pour cent yi kenn baaxu ci. ndax ministre boo xam ne yow yaa war a diglu askan wi ba xam yan jafe-jafe la nekk. kenn ko la woo muy muy ministre du DC kenn koy woo ba jot ko téléphone ngir say mbir am avancé wala nga benn. benn benn loo xam ne nga ci war a mën a liggéey tey ñu financé la ko wala nga war waxtaan ci ñoom wala nga jot leen téléphone ngir ñu jàppale la ci amut loolu moom nit ñi ñu ngi koy coow munoo ci ils sont pas accessibles Macky Sall moom bënut munoo cee jot kenn bënut hmm. ndax euh, man Abdoulaye Wade fa la ma fekk hmm. Abdou Diouf ñu noonu hmm. waaye lam fa def moom mel na moom moo ko fa def ci li ma gis teg teg teg sama bët lan moo tax mënut a gañe Touba waaw problème baa ngi noonu ñam fa teg baaxut am na ñoo xam ne ànduñoo ni ànduñoo nañu fa teg sëñ bi koo xam ne yow yeewoo Touba. Hmm. xamoo Touba dara dëkkoo Touba. parce que man dégg naa démb benn DC xaw ma ko sax hmm. dañ maa ji envoyé vidéo bi rek. Hmm. ma xool ko ma naan léegi Macky Sall politique boobu na ko politique boo xam foofu sëñ bi. waaw bañ leen suñu borom taral weesu nañu foofu loolu du wax. waaw kooku bu Macky Sall amoon cinquante tey wàññi na wàññi na ci lu mu gàtt cinq pour cent. ndax waxa jooju dafa rëy mm-hmm, mm-hmm. ndax kenn ko nag ci gis bopp man mii gis naa sama bopp waaw ndax man musumaa jox kenn musumaa jox xaalis si politicien mm-hmm, du Macky Sall muy keneen muy Abdoulaye muy keneen donte Abdoulaye Wade moo gënoon tabe mais defu ma defu ko mais loolu ma wax ni lu Macky Sall yàq rek loolu mën na ko faa yàq te Macky Sall ma seetlu mooy depuis ba mu ñëwee ba tey Touba dong ko xañ jàmm Touba dong la bëgg a gañe mais lan moo tax mënu ko gañe moom daal moom fay def defu defu ko fenn ci Sénégal te bëri na ay politiciens yu fa nekk. ne bëri na politiciens yu fa nekk mais politiciens yi coolee fi nekk mais fo maanaam teguñu fenn waa Touba. amuñu ay nit policiers ñaari nit amuñu ko man maam Dior maa la ko wax. Touba nekkuñu ci ay ay ay ay ay parparloo. Hmm. ay ñoom Touba bu ñu gisee bëgg leen rek dañu bëgg. Abdoulaye Wade li mu leen defoon moo tax ñu def ko noonu. dëgg la Macky Sall def leen ko mais nag la tax mënuñoo ànd ak Macky Sall ci na na Macky Sall xool ñam fa rek dama na xool. ñam bañ ko dalee wax yàgg na ne na xool ñafane fa ay nitam ya fa ne bañ ko wax dalee wax yàgg na ba tey situation changé gul. ña fa ne kenn kenn kenn kenn kenn ku mën a gañe Macky Sall Macky Sall foofu foofa. Mhm. kenn mhm. kenn ku mën a Macky Sall foofu amut. Mhm. kon nag xoolaat ak encourage boobu bu baax a baax a baax. te ñu xam ne nañ dem ci nit ñi. xam soxla nit ñi du ko faj. parce que man nañ ko. waaye nag toog Dakar daal lépp lépp nooy na. fan la nooyee ca élection yi ñu dóor la. cent pour cent waaw cent pour loolu tamit kon na xoolaat encourage bi parce que la mu fa def yow yu mu sa jëm bopp sax xam nga ne la mu fa def defu ko fenn ci Sénégal uh-huh. mais lan moo tax mënu ko gañe mm-hmm. te nit ñi bañuñu ko mm-hmm. Touba wallaay la xasim bañuñu Macky Sall mm-hmm. man xam naa ci lu bari doxalin bi la doxalin bi moo mel rafetul doxalin bi rafetuwuñ ko te doxalin tamit baaxul mm. Touba duñu ay xar duñu ay jaam duñ Touba da nga leen teg fii ñu teg la ñu teg la fañ la war a teg mm. mais nit koo xam ne tegoo ko fenn mm. du mën na ngaa ñëw nag politique si moom lu la nga indi ko fa wax ju bari bari bari hmm. mais bu élection yi ñëwee da xam ne Touba gi li ñàkk moom juguñu si. est-ce yi député nga xam ñoo représenté Touba ñu ngi def seen liggéey tamit. non non. parce que bëri nañ fa de te ñu bëri ci njaboot gi lañ bokk. mais xam nga. ñaar lañ. Mhm. waaw te ah, ñoom ñaar nag kenn ki sama xarit la <laughs> sama waay sama xarit la nii rek nii nii sama xarit la nii buñ dajee moom dañuy nekk ay waay. waaye xam nga politique man damaa jàpp ne Pape du ay waxe kese. yor sa làmmiñ rek fa ñett nga woo presse bi wax ci dara. Mm. loolu du politique. Mm. politique moom da ngay dem ci nit ñi. xam seen i soxla. nga leen ko fajal. terrain la waaw. daawam la am Touba ci nawet bi. Mm. bu fa amaatoon ren. mu ne ma ay ay dana am gis naa ñoo xam ne man dama damay dem ci ñoom. Mm-hmm. dara seen kër yi seen kër yi dara maanaam am na ñoo xam moom dañuy sama am na ñoo xam dañuy génn. waaw chaque année dañuy génn ñoom ba nawet bi jàll ñu ñëwaat. daaw la gën a jéggi te daaw dafa métti. daaw dafa métti man maa ngi fa mhm. ñëwoon naa fa. dafa métti ba ci jooju nag fii nii xool. Mm. bu am na kër ne boo fa demee matul diggam ak jumaa ji matul mm. cent cinquante mètres wala mm. deux cent mètres fii nii boo fa demee nii da nga fekk ndox moo xam ne. doo xam fu foofu baax. Mm-hmm. diggam ak jumaa ji matul deux cent mètres. xam naa foofu bu baax léegi lan moo lan moo tax munuñu ko saafara mm-hmm. daaw ba ci màggal gi ah ñoo amoon ay problème ay problème su fa jaar da nga koy am mm-hmm, mm-hmm. Touba nit ñi ñoo wax dëgg gi ñoo wax réalité bi mm-hmm. mais ña fa nekk seen bopp xaaj bi seen bopp leen ñor maslaa bi warta jeex dafa war a tàkk waaye xaaj bi seen bopp moo leen ñor ñëpp nag laa la wax xaaj bi seen bopp leen ñor coolee fi nekk rek ñu naan ay lii waaye xaaj bi seen bopp rek lu ñor xaalis dong lañ bëgg élection locale bi ñu jëm lan moo ci sa xalaat waaw locale bi li ci sama xalaat mooy damaa jàpp ne Mhm. législative législative astafurla élection député yi. Mhm. Mhm. élection député yi li ma ci xalaat. mooy damaa bëgg ña fa nekk ñi nga xam ne ñoom la ñuy tànn. ngir wate leen. li li fal li fal Macky moo leen fal. muy askanu Sénégal. Macky Sall jëlul leen. déedéet Sonko jëlul leen. askanu Sénégal moo leen fal. kon nag bu ñu nekkee assemblée. nañ xool ni ñii ñoo ñu fal. nañ leen jàppale ci seen i bëgg-bëgg. waaye assemblée boo xam ne comme ngénte ah loolu moom wax diggal dafa lu ma ko coow bari xuloo bi fee saaga yi fee waxante yu lu bon loolu amul benn njëriñ Sénégal feeg wax bàyyi woon waxante lu bon Sénégal du avancé bari na ñoo xam ne loolu moo leen tàddeel jotul tey ndaw ndaw ndaw tuubaay yi ñi ci bëri comme ñi nga wax ñi am ay bac arabe ñi jàng tubaab nasaraan am am am am xam-xam ci hmm. wàllu développement économique jotul tool ñooñu ñu tànn leen ñu war a toog ci assemblée nationale bien sûr loolu dafa war a am sax. Mhm. ñun ñii ñëpp war nañu war nañu a nekk assemblée. Mhm. parce que am na samay samay samay bokk yu fa nekkoon. mais ñooñu damaa jàpp ni lan la la lan la fa yóbbu ñoom xamuñu ko. parce que am na ñoo xam ne mosuma moom bañ depuis cinq ans yëpp mosuma gis ñu leen falee ba tey. bañ ci bañ leen tey am na xam xam naa leen bu baax. Mhm. ñoo xam ne kenn koo xam ne moom fan lañ naa assemblée nga ne fa di fa dem. nga dem amul amul. parce que ñoom damaa jàpp ne loolu war naa mën a dem assemblée xam ne ñu ne kii kat sa dub Sëñ Tuubaa ngi assemblée mm-hmm. bu ñu ko joxee kàddu mu jël kàddu wax xalaatam loolu mooy yàq der mm-hmm. parce que loolu boo ko defee keneen rek bu keneen bu ñëwaatee mooy système politique a yàq loolu mooy système politique. Ah. waaw loolu day xaw mm-hmm, moo demee noonu. en général noo xalaatee réew mi. waaw réew mi de moo xalaatee Pape mooy. ñu booloo ca nekk benn. ca wàññi politique bi politique bi daal ëpp na lool moom. ndax Sénégal moom at mépp politique dañ koy politique at mépp dañ koy ah. politique ba at mi ah. jeex ñu nekkaat ba. parce que hmm. nañ liggéey sëñ bi. waaw ah. nañ wutal ay liggéey parce que ba démb rek gis naa benn vidéo bu ñu ma boo xam ne. Hmm. sàcc yeeg. waaw sàcc loo xam ne kenn xam agression yeeg waaw kenn xam loolu. wax dëgg yàlla nag sëñ bi. Hmm. dañoo wax ne dëgg mais réew mi métti na. waaw moom métti na métti na loolu wax dëgg yàlla ndax nit ñi lekkuñu ñu dund bi seer na xam nga. lépp seer na. dégg président ñu ngi koy wax mu mu mu mu mu jàppale askan wi ndax askan wi sonn nañ. Mm. vraiment askan wi sonn nañ lool. Mm. waaw nit ñi xiif nañ sonn nañ lu yaas bi seer na. Mm. xam nga loolu yëpp dafa seer la yëpp war nañ cee defaat ab taxaw seetlu daal parce que. réew mi daal fi ne naqare na moom Pape Maguette hmm. moom surtout liaas bi wax surtout liaas bi moom teg nga loxo fu am solo seer na seer na seer na loolu <laughs> seer na dañ a hmm. boo xoolee nit ñi ñu bari bari dañuy génn léegi dem ci yenn seen wili hmm. bu jegee Dakar ndax autoroute bi daa nga tax na daanaka ñu bari dañuy génn samedi dimanche ñu ñëwaat liggéey si xam nga loolu metti na daal bu loolu liaas bi wàññi ko woon parce que immeuble moom amul amulul njariñ réew mi parce que kenn nga fay jël muy benn gardien immeuble bu doon fanweeri étage benn gardien fay nekk loolu du xool du am réew sëñ bi te ko naa mën naa mën ngaa jël emprunt yu ma ta xawaat la nag mm, mm, mm. euh, bi am na loo xam ne tamit xew na bu ñu génnee ci wàllu politique ak lépp mais dafa soxal doomi réew mi nekk xale nekk jeune comme yow mhm. Idrissa Gana Gueye <coughs> di ñu représenté di représenté couleuru Sénégal mhm. euh, moom champion d'Afrique ak équipe nationale bi yëpp ñu gis coow li nga xamante ni am na ko ca Paris Saint-Germain ndaxte seen mayo yi ñu sol ne dafa am ñoo xam ne ñiy ginnaawal wala boog ñuy dooleel borom mm-hmm. ñaari tur yi la. moom mm-hmm. mu ne du ko sol fi mu nekk nii coow laa ngi ne kur foofu man kàddu nga ci nga ciy yëkkati. waaw man de nitu diine la mm-hmm. ci diine la judd. ci lay ma yar ci laa màggi waaw kon nag bu defee loolu man li may li may man mooy da ko ñaanal yàlla sàmm ko. ndax góor jigéen moom yàlla nañu ci yàlla musal gi sax yàlla nañu ci yàlla ndax day day dellu ginnaaw am réew suñu réew mi nag bi ko fi waaye ñu ngi ñaan yàlla lu lu mu fi dégg lu mu bari bari bari rek nañu yàlla dimbali ba suturaal ñu ba ba ba ba ndax xam naa ne <laughs> góor jigéen fu mu nekk mm. yéen mën na yàlla du fàcc waaw yàlla ginnaaw rek mi moom ginnaaw mi ngi fi yaa ngi fi dégg mm. yàlla ñu yàlla suturaal ba loolu ba bañ agsi ci ñun amiin amiin ndax wax yàlla suñu borom moom yaakaar naa danañu ruus ndax mm. kilifa yu baax yi ñu mm-hmm. ndax ñëpp am nañ ngërëmal yàlla mm-hmm. te képp nga am ngërëmal yàlla kenn yilifatul la mm-hmm. kon nag ñi ngi ñaan seen borom defal ko jàmm fa mu nekk mhm. te loolu mu way te loolu moom conseil la boo xam ne ñëpp ko war a def ku dub jullit rek ku dub jullit rek mhm. di wax ashadu laa rek war ngaa bàyyi xel ci loolu mhm. ndax loolu du yëfi du yëfi ko ndaw wax dëgg yàlla man maa ngi ko ñaanal à personne nga xam ne man comme li ma a wax rek nitu diine la ci diine laa judd dama ko ñaanal loolu yàlla ko jàll defal jàmm amiin yaa rabbi waaw amiin sëñ bi Mbacke lan lan ngay tàggatoog askanu Sénégal lan ngay baaxee way politique yi lan ngay baaxee way politique yi nekk biir Touba war a développer Touba muy kàddu yoo xamante ni kàddu euh, ziar lay doon ñu daal di mm. euh, yëkkati jotaay bi. waaw jërëjëf loolu moom li ma ciy tëjee mooy. Mm-hmm. xanaa di sant ñëpp di ñaan ñëpp di wax ci mm-hmm. politique bi moom. Mm-hmm. dama jàpp ne daal sëñ bi maanaam muy Macky Sall muy Sonko ci am. am na temps yoo xam ne moom du politique. waaw temps liggéey la. temps liggéey nag bu ñëwee da ngay liggéey ci bàyyi politique bi temps yi politique bu ñëwee ndax politique lu mu yàgg-yàgg du ma du ma dëgg ma waaye élection wate nañ jeex na kee def na ne kee def na lee ñu daal delluwaat ci liggéey bi mais Sénégal moom trois cent soixante cinq jours yëpp dañ koy politique <laughs> atum lëmb atum lëmb dañ koy campagne xam nga loolu moom doo xam lu mu doon hmm. ah politique boo xam ne wax guddi wax bët yàqante yoo xam ne nag man loo tax rek bëgguma politique dara moom hmm. da wax ju ñaaw rek lañu wax ah. mbokk yi saagante fee ñu bokk ndey ak bàyyi kii jaar ni kii jaar ni hmm. saagante yu ñaaw sëñ bi doon xaar seen bopp nit ku yiw da xam sa bopp. politique moom maanaam du ma ne bon na du ma ne baax na. Mm-hmm. politique lu lu ko bonal ndax kàddu yu ñaaw yi ngay wax dañ ko bonal yi moo tax dañ ko bonal. parce que politique boo xam ne saagante man ma bokk ndey ak baay yoo xam ne yu bon waxante lu bon. Hmm? Mm-hmm. loolu baaxut. Mm-hmm. moo tax ñu war ci war ko xool Sénégal dañu war a xool ni ñuy politique yi. parce que lii du politique bu baax. parce que képp koo xam ne maanaam politique diine nangu na ko. mais nag bu fekkee xeeti politique yi yii yii moo am moom. am ñoo xam nit ñu yiw ñoo parce que lii du du la rafet. Touba nag la ma fa mooy comme Macky Sall dama nga fay liggéey daal ni ma jàpp ne ñam fa teg ñam fa teg war nañu mën a góor hmm. man du ma fenn moom du ma hmm. APR du ma du ma Sonko du ma hmm. kenn man sama bopp laa. waa nag damay wax li damay wax li nga xam ne moo fa am. waaw doomu réew mi. waaw Touba nag moom bari na mbàkk mbàkk yu fa nekk yoo xam ne dañuy nekk Dakar di taxawal ba mu neex leen. ñu ne mokk na fu mokkee <laughs> mokkul te yow dëggoo Touba <laughs> xamoo Touba la fa xew xamoo la xew xamoo lu mu doon nga naan Touba mokk na mokk loolu la ñu ne président dafa war a yow xam ne loolu moom ay nax la kon Touba daa wow koŋ fi mu ne mokkul moo gën a wow suuf la la wax Touba wow na koŋ koŋ koŋ la def moo ko gudde war nañ ci liggéeyaat war nañ ci liggéeyaat bu baax a baax a baax mm, mm. waaw war nañ ci liggéeyaat bu baax a baax mm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi lay jaajëfal bu baax asalaamaaleykum gudd fan wér te lépp rek loo mébét Touba googu noonu mu nekk sa biir xool yi en tant que doomu réew mi laay wax sax mm-hmm. Mm-hmm. yàlla na ko suñu borom mottali li yàlla na ko kilifa yi dégg mm-hmm. ba mën cee eh, def ay jéego ñu déggee ko déggin boo xamante ni déggu dëgg lay doon ak jëfee ñu ngi lay jaajëf baax ñu ngi jëfal ñëpp góor gi eh, El Malick sëñ bi aadama jëwriñ ñu ngi ziar ñëpp jaa ngeen jëf